assalamu alaykum mbokk Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax di nuyu suñu mbokk internet yëpp ah di leen nuyu waat di leen jaajëfal bu baax ah tey nag ngeen ànd ak seen artiste Cheikh Yahou Kane ci émission Dental TV ni fas yéene fi dalal nag benn artiste bu yéeme boo xam ne moom ñetti casquette la amee fecckat la day taasu ah te day def bongo macha allah aussi day def wàllu mode parce que tailleur la ñi naan ko Aline Fall. en même temps ci orchestre yi. voilà nekk ci orchestre di liggéey macha tey moom la ñu fas yéene invité fii ci émission Cey Dental léegi nag dañuy jox Aline Fall comme ça mu nuyoo nuyu suñu mbokk internet yëpp Aline ñu maa ngi lay maa ngi leen di fay waa di leen wax na nag Aline Fall a nii xale xale la di leen siyaar nag yéen ñëpp te xam ne euh, ku ñëwee rek dañ laa dañ laa woo kan nag yow yaa ma yow yaa ma dooleel yaa yar. li ne ci man yëpp mën naa ne yow la ndax yow fekkee nga lépp fekkee nga lépp waaw di nuyu tamit sama yaay bi nga xam te ne nii kër ga laa ko bàyyi mu feebar ci loolu wasalaam waaw waa sunu yaay jooju noonu yàlla nga yàlla yëkkati ak jàmm ak salaam yëkkati ñëpp ñu feebar ñëpp ñu ne ci hôpital yi ñu ne ci biir kër ñu ko yëgal ñu ko yëgul yàlla yàlla defal ñëpp saafara ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi waa mais Aline tey waa Dentale TV ñoom ñoo la dalal fas yéene waxtaan ak yow ci sa carrière musicale waaye lu jiitu loolu Aline dañu gis ni yow da nga daan fecc ci loolu leen la xamee woon lan moo tax léegi ni jékki-jékki gis Aline ci bongo yi lu ko waral. waaw Seydou xam nga fecc bi talent amoon naa ko ci loolu te bopp ba mu wóor la sax yow mais li waral ma wàññi ko mooy nag ka tey jii dafa am euh, na ma yàlla baal. ñi ñi naan ñaari ñaari kii tur yi euh, ñoo tax ma xaw a wàññi léegi ba ma wàññee kon taasu moom sës bàyyi ma nag maa ngi fecc ba tey mais li may la taasu moom mu ëpp loolu rek tax ma xaw a wàññi wàññi fecc beeg yooyu noonu. waaw leer na nañu donc Alioune Fall dégg ko nee na borom ñaari tur yi moo waral léegi fecc bi sa waratu ci noonu. waaw ah, loolu de xaw na bare loolu ci senegal loolu mais loolu bokk na ci li nga xam ne wax dëgg yàlla.

waaw mën naa ne man damaa jot rek dund aar ndax man sama yaay daan daan fekk euh, ma ma daan wër nag ci xumba yi nekk xale nekk xale bu am am 12 am na ci lu ne. c' léegi ba taxaw la ma dama dama dem ba xam ne ah kenn mënu ko lan la ba sama yaay fu mu jaar naan ko ñu ñaan kan sa doom yee fi fee moo fi ba wàccee nangam ak nangam. sama yaay ko bi jot na mu bàyyi mu bàyyi continuer dañu fecc fecc tamit yor naa ci saal Oscar yor naa ay saal Oscar bu benn si ñaar kan ma saat mën naa ne man maa fi li ko tuddee ak fecc waaw kan ma saat nii man maa ngi yor saal Oscar fii nii te it fecc tamit kaar am naa ci ne ndax su ñu ñi xamee tey moom la fecc la. macha allah mu ci loolu am benn bis ba ba ma wàññee fecc bi. am benn bis euh, moo tëdd mel ni sëñ Fallou moo ma yee ci laal daan ma tudd wala wax yow loo wax mu sax ñëpp loolu euh, ma nga keneen ci wax nag loolu laa ñu ni ko wax dama sëñ Fallou Mbacke moo ma sëñ Fallou ca ba mu mag kakaraat sa seytaane taasu boobu noonu amaana euh, daal ci wax ma waaw macha allah macha allah euh, macha loolu am na doole lool am na solo trop. voilà sëñ Fallou moom ku mu fal nga fal. waaw sëñ Fallou ku mu fal nga fal may borom jëndi te kuréel mu jëndi macha allah. léegi Alioune Fall. Euh, dama la bëgg a laaj ndax yow mus na def album parce que dafa mel ni fecc bi léegi amoon na comme ni nga ko expliqué. maanaam euh, fecc bi amatu noonu doole ci yow. lu ëpp doole li nga def mooy bëngo. voilà donc ma lay laaj Bongo bi ndax jot nga ci enregistré benn album wala jot nga ci def single. waaw ba euh, ma bàyyi fecc bi jublu ci Bongo Bongo tey mën naa ne kaar macha allah lu ma am ko may waaw lu ma am moo ko may def naa sept single sept single moom laa def du album nag ba tey maa ngi xaar kii la boobu amaguma ko. mais lan lan ngay xaar pour pour def album ku mun a def sept single. Alioune Fall mais war nga mun def album. loolu am na mais xam nga tey jii boo nekkee benn la benn la loxo ci kër am ñaari soxna yor sa yaay xam nga yow tamit say rak xale yi xale yi nga xam te ni yaa nga leen di jàngal aar tamit yaa leen di yor. waaw xale da nga dëggal fit nag yow tamit. xam nga tey da nga dëggal fit double galon. waaw ci xale bu ndaw. wallaahi wallaahi xam nga soxna soo koy am ay soxna. waaw soo koy am. dang koy am ci ba ngay xale katal nga ak fa lépp daal lépp am mais so xaar ba do mag so ut ñaan am na no ali ali jox ma loxo parce que dama la fa quoi man dama gëm quoi la góor am fit quoi. loolu lay àdduna loolu lay àdduna tamit xam nga arbi bi dama xaw ñay yéeme bo ci nekké xaaliss yi da lay ya yom lool te jigéen tamit ci la ñu suñ la xolé xam ne yaa ci yox yaa ngi ña ñaari soxna ku gëna a day xam ne do ko do ko tak bi xalaato ko sax. d' accord mais yow Alioune est yaa ngi xalaat am kër wala am nga kër ba pare. parcelle am naa ko ah may may nañu mat terrain. ci ci aar bi la euh, di nga ñu ak oto ak 5 millions. ah macha allah ah. kon nag booy Alioune wuyu ma 5 millions ki nga xam te ni daal dañu nangu ko. ñu ñu ñu koy wax euh, Birama Niang di sama nit ma woy ko benn son xam naa campagne yi di ñëw incha allah moom dafa am doom yónni na ma xaalis bi. ah waay yow yow yow Alioune kii Birama Niang ah Birama moom Birama Niang benn waay la bi nekk Jaxaay euh, ba Kàmbereen. macha allah ñu ko xamul ku ko xamul. dénk ko. waaw booy jëli 5 millions nga woo ma gunge la dégg nga. saa su ma woowee rek incha allah dégg nga. boo koy jëli rek woo ma rek ma. waa ni <laughs> gunge la quoi. parce que Birama Ndiaye moom jaar naa seeti macha allah. artiste moom képp ku rek man danga may neex. parce que artiste yi wax dëgg yàlla mérité nañ ñu jàppale leen bu baax a baax. moom la lépp moom la lépp moom la Birama Ndiaye. sama yaay bu baax a baax a baax di ko sant ndax man sama première son sama yaay moo la tey gi nattab dina jox moom mooy lu gis joo yaay dañoo yàgg sonn ci ak moom tey ji na jox moom mooy lu gis joo ba pare sax ni nga sama soxna sama aaw Moussa Thiam moom it moo fa toog moo xaar tey ba lépp ñëw wàcc alxuraanu karim tey ji góor bu am da doole rek da nga am d'accord ne sama eh, eh. hmm. ginnaaw sama ah yàq ci dara yàq ki dara ya, mu jël tànki magam fi magam di jaar fa lay jaar wallahi d'accord macha allah Bousso Awa Buru Korom mom xam naa ko mais nag ñu ngi nuyu tamit ñaareel di bu baax a baax di di di di nuyu euh, sunu yaay jooju te di ko ñaanal tawféex waaw way Aline euh, dama la bëgg a laaj. Dental TV de li mu def laa leen ci lay du ay fo ay